du nuyu soxna maam say ma di leen xamal ne leen tey jii li ko waral mooy maanaam damaa nekkoon ci PDS te gisuma ci sama bopp te ma gis na président Macky Sall moo doxal fi mu ne réew mi ma jóge fa ñëw fii bëgg a fas yéene ànd ak soxna maam say liggéey mu jàppale ma ci sama mbooloo ndax loolu rek laa bëgg sama koñ bii ndax dañoo ànd ak man di yéeg ak a ñuy liggéey te gisuma ci sama bopp booba ba léegi léegi nag loolu ma ci soxna maam say and ak mom pour ñu liggéey ma nekkon ci seigne Fallou Mbacke di liggéey ak mom te gisuma ci sama bop xeytu jafe-jafe yeen am otay magal gi wi daasi duñ ci am moy yu bari daal amuñu ci légui nak lool nak lañ bëgg mo mo dañ financement yépp amuñu ci moo tax ñu bëgg ñëw ci soxna maam say mu jappalé ñu ci jigen ñaa ni bëgg liggéey bale nekk di waas jën ak a xool li eh. loolu nag laa bëgg mu jóge jën ak a ndax yaakaar nañ ko trop ndax lim fi jot a toog ñi bu àndoon ak moom ña ngay jàppale seen mbooloo moo tax ma jóge fa ñëw fii bëgg bëgg a jàppale sama mbooloo sëñ Fallou Mbacke ma caa gisu sama bopp waaw jéego bi def da bari na ndax euh, li ëpp solo mooy indi ñoo xam ne ñu nekkoon ci parti comme ñu nekkoon parti PDS te duñ seen bopp ak ñu nekkoon ci parti Khalifa Sall réew mi ñu bëri indi ñëw APR jàppale président Macky Sall bu baax ñu ngir élection yi ñu ko bëggee premier tour ñam ko ñu ko bëggee incha lan nga gis ne moo ñu président Macky Sall. Euh, def ci bi ma ko lim sax day ci mujj rek te ci Afrique Ila Touba bi. nga xam ne loolu moom dafa sedd xol bi yëpp waxuma ak murid yi tey jii boo dem Dakar doo sonn ni nga am ay jafe-jafe amatoo jafe-jafe indi temps da dem Dakar ñëw da see te ñëwaat financement DER bi ak jàppale jigéen ñi dooleel leen ndax jigéen Touba sonn nañ trop ndax ñi leen jàmbat lépp xam ne añ ci ay jafe-jafe yoo xam ne mënuñu koo wax ndax ñoom liggéey leen gëm ak jaamu yàlla te nit nag bëggee liggéey te mënum liggéeyee ah, day sonn day sonn ci jabootam sonn ci këram amul nit ki boo gisee muy liggéey nekk ci doon président am toog fi cinquième si si si fi cinq cinq si toog fi juróomi at lim liggéey am solo am ci toog na fi dix ans liggéey moom te fi cinquante liggéey loolu ñu xam ne liggéeykat la ah, dafa dafa bëgg na Sénégal bëgg naa defar réew mi li mu fi def nga falaatee mën naa def lépp loolu moo tax ñëpp nag seen xel di siwaat ñu ñëw jàppale président Macky Sall man deuxième mandat li mu bëgg liggéey Sénégal mën ko liggéey ndax fi mu réew mi ni ma gisee président Macky Sall moo ko mën a defar ndax li fi defar bari na nañ ñëw jàppale moom ay ay yéeneem ci Sénégal. Abdoulaye mag la rek nañ ko bàyyi mu dem toog nañoo jàppale nañoo jàppale président Macky Sall ndax njiit yàlla koy sàkk yàlla ko fi teg kon nag ñëw dugal ci loxoom mu àgg ndax bëri bëri ko ci mbattan la puus mu ne puus mu ne kon nañu dugal loxoom rek ànd ci ndam li moo gën tubaa moom mooy sele bi yoonu politiciens yi ku am ndam rek Touba nga amee kon nag moom bu tànnee Touba élection yi dik lu bee campagne am loolu moo ne jox na sëñ Touba cër jox na yoonu murit kenn ku ne xam ne kon dellu nañ suñu gëdd ñun yoonu murit lim ne ci yoonu murit la bokk tamit chaque jour rek mi ngi wane firnde bi ndax euh, heure bu bee campagne rek Touba lu bee ci campagne am kon nag ñu fas koo yéene teew teer bu rafet sargal ko di ñaan nag ci barke suñ Touba mi tam fi ñëw yàlla ma ko ndam rafet loolu leen naa ñi ma di ko ñaan tiitaluñu ndax xamante nañ suñu biir ñoo bokk nekk PDS danañu fekk Touba li ñu koy wan dañ ko dóor incha allah dóor yi metti ba du geesoot sax waxal Touba kon